Boule Faté abonné. fi ma ci avec moi et ben buntu bunt ci ci bunt yi nga xam ne sëriñ Modou Khayra lal na ko dal falay dindi jël aw rek tibb ko yor ko ki doon xamle turaas lu mu doon daf ne mooy loo xam ne dañ ñëpp ko bokk wax na ci ne waras na ko jàngale wax na dëgg ñun waras nañoo jàngal luñ bokk am na nañ koy bokk loolu xamaguñ ko moom si mbuuru xaare tudd na jumaa ji léegi jumaa ji naam nam meloon 1963 Serigne Touba bàyyiwu ko na waaye suñu ko bàyyi woon noona mu gën a yàgg dana dëggal coono yi mur yi dajoon ba taxawal ko muy benn ñaareel bi it ñàkk gi ñàkk xam luñ bokk luñ koy bokkee dem na ba ci maxtuutaat yi ñuy wax nga xam ne murid yi dañ cee indi ay xarala yu yees yoo xam ne seen yosi bopp la te muy alxuraan alxuraan jooju ñàkk gu ñàkk xam lu ñu bokk nuñ koy bokke am na ci ñooñ kaayam lu diw moo leen gënal ndax farfarloo farfarloo lañ xam waaye xamaguñ lu ñuy bokk ak nu ñu koy bokke ku koy jàngale foofa ngay tàmbalee bañ xam luñ bokk nu ñu koy bokke ak liñ bokk lu doon an nooy xame luñ bokk lan la ak loo xam ne yaa ko moom ak loo xam ne sa yoon nekku ci dem na ba ci mbind Sëriñ Tuubaa yi nga xam ne dañu koy daaj mu di ci ñaan wala muy tagg yonent bi sallallahu alayhi wasallam wala muy tudd yàlla wala muy téere boo xam ne istigfaar la bu ca nekk mbooloo mi tànn nañ ca njàngum diw te li ñuy jàng lenn la waaye diw leen gënal ndax mooy diw ndax moom lañ faral loolu it kuy jàngale turas bi faw nga jàngale waale nañuy bokke mbir dem na ba ci bu ma desuwaatee ci mu jigéewul léegi muy jumaa ji am na ñoo xam dañ naan jumaa ji suñu fallu ji ci buñ ko bàyyi woon noona keneen ne ko déedéet xanaa boole woo ci yokk bi bi ci ñëpp laxat def kii na xanaa boole woo ci jumaay sëriñ Saliou ji kii na xanaa boole woo ci ñaari soroor yi ci sëriñ Sidi Moxtaar dolli xamuñu ne ci fenn fi la ñuy tibri def ci fenn fi waaye ñàkk gi ñàkk xam lu ñuy bokk nu ñu koy bokkee tax na kenn ku ci nekk jël na ci ak wet téye ko ba sooy wax ci moom bala ngaa am la la neex nga ne def na ci jumaa ji nangam ñu laaj nag kenn ku ci nekk ci ñëw ñu ma tudd ñëpp fa mu doon jëlee li mu def ci jumaa ji fu mu doon ñëpp ko doon joxe kon tomb bu am solo la dem na ba ci waykat yi nga xam ne dañuy woy ci làmmiñu wolof te bokk ci yoon am na ñoo xam ne sëñ Moussa Ka leen gënal ndax moom lañ faral faral la muy wax amuñ ci soxla waaye sëñ Moussa Ka neex rek ñu farek moom am na ñoo xam ne Mbay Jaxate sëñ Mbay Jaxate moo leen dàqal moo leen gënal la muy wax amuñ ci soxla jéemuñu koo jël jéemuñu koo jëfe waaye sëñ Mbay Jaxate a leen dàqal moom lañu faral ci sëñ Moussa Ka ñenn ñi sëñ Mor Kayre ñenn ñi sëñ Cheikh Samba Diarra Mbaye ñenn ñi ñu mujj ñi ñu yees ñii kon boog tomb la boo xam ne bii bu mat a sonn la dajale yu yàgg ya denc ko am na solo waaye lay tax yañ ci mën a génn mooy ñu xamal nit ñi liñ bokk ana nuñ koy xàmmee ak bu ñu ko bokkee kenn ku ci nekk bokk ga lu muy jariñ ak lu mu ca war a taxawee foofu daal jàpp naa ne fu bu ñu fa tàmbalee euh, lépp mën naa baax ma jeexal ci ne euh, wax gi ma koy waxaat bëgg di wax nii rek waaye ñàkk gi ñàkk xam lu ñu bokk kenn ku nekk far dana tax kuñ la waxtaanloo rek nga wax ca doonte xamoo ca dara waaye da nga seet ña far foofa lañ bëgg a dégg rek nga seet nañ ko bëggee nga jaaree ko fa loolu la muy jural nit nag ci bopp mooy dootoo am misdaqiya ci nit ñi ma jeexale ko ci ka ñëwoon ci jotaayu buur fekk ñépp di tagg buur bi ñii di ko kañ muy maye rek bu doon suñ jamono dañ naan muy baatare rek di baatare ba baatare fu dara nekkut ki nga xam ne nag am këx la ku tépp ci way ak joru jékki-jékki rek di wax ne miig toog ci bu xam rek na cell ne miig na cell kon amul soxla ci li ñuy wax buur ana ana diw ñu ne ko ñëw na de gis nañ ko fi léegi mu ne nañ ko wëri mu ñëw taxaw ci kanam buur ne ko maa ngi mu ne ko loolu tere wax nit ñëpp mu ne ko buur man duma la sant duma la tagg du ma la kañ mu ne kon lewetal leen ko ginnaaw baat boobu la suñ bu jëfandikoo léegi ne ci murit la bokk lawetal leen ko mooy rendi leen ko waaye nag kenn koo xam ne kii xam na li ko boolee ak buur xam ne turaas la bokk buur bi yor lu yàqu moom la yàqul moo ko ne dee defut luñ ko war a lewetale danga ko laaj mu tontu ko danga koy laaj lu tax mu ne ko lu tax mu ne ko dee sa way ba way koo xam ne jër sa way dee sa kañ ba kañ koo xam ne jër sa kañ dee sa tagg ba tagg koo xam ne jër sa tagg dee sant ba sant koo xam ne sa sant dem bëgg a toogaat mu ne ko déet waxal wax andil andil euh, fenn fu ñuy jàpp mu ne ko dama lay ñaanal ñaan laa lay defal yàlla bañ laa wan sa bopp Yalla, kum wan won bopam kujis, ko gis waye ku yalla won bopam deug deug deug moy kum xamal ne jaamam ab jamam nga ku setan won bopam la bëggoon wax dama la ñaan yalla dama la ñaanal yalla setan bañ la wan sa bop ba nga defé ne lenn nga ta doono ci dara fi nga nek dañu la fi andi dañu la fal ñi jaayante jaayante ak yow kon na nga xamne ci ay loxo la jóge ñëw ci say joxo rik na nga ko sàmm ba boo koy tegaat ci yeneen joxo mu gën na meloon bañ la koy jox noonu la ñuy kon maa ngi gàttal foofu di ñaan sunu borom yàlla may nu dégg ko bu baax a baax a baax waxtaan nañ tomb bu nekk mbooloo ma bari lool waaye mbooloo ma bari amu solo ci mbir booloo moo gën mbooloo kon lii yàlla na gën a yàgg ñan ma kel ma rek bokk yi suñu farfarloo àgg na ci te loolu yàggut a am mën naa wax ne li ko tàmbalee 2000 la dangay ngay dégg kuñ tudd rek ne def na nangam waaye bu ñu tudd ba àgg ci koo xam ne deful dara nag nu ñuy def ñu nañ ko ñaanal rek ndax am na yéene yéene nag am na solo lool ci jaamu yàlla waaye na ñëpp raxasu ñu ko wàggatee di defe ba ubbi la ñuy tiim ba tiim ko nga ne yéene naa ba xam dara dana sotteem de asalaamaaleykum wa rahmatullah